Mais ça, c'est l'équipe de Soubatel en place. <laughs> ana bébé Zénith. <laughs> directeur. maa leen di siyaar. ana l'homme du juin. mais baby Zénith. mais ça c'est le plus jeune manager de l'Afrique de l'Ouest mais jékki waay. mais ana ngeen ak <laughs> ana ngeen ak SFR de. Mbaye SFR. mais ci lu ngeen naka dernier réglage yi. mu jël te naa salle bi suba lañ koy tijji. waaw waaw man ma doon dem suba élage bi sax ma dama koy pusaat ba ginnaaw suuf mën a dem ci salle bi incha allahu rabbi. yee doog a laal jëf kee. fu ñu jëm nii sama mbokk tukulóor yi. man laa soli. waaw nañ dem ci mbi mbi mbimaam yi. andu sa andi andint. direction Mantes-la Jolie on arrive avec l'équipe l'équipe l'équipe l'équipe l'équipe l'équipe l'équipe l'équipe du ay fo Yes, yes, bienvenue à Mantes-la-Jolie avec Sidi Diop, l'homme du 29 juin, Inch'Allah, Rabbi, Mantes-la-Jolie. Ben, c'est faire. On force. Dans combien de minutes 4 minutes, non mm-hmm. Ok, mon gars. Yes, yes, Bienvenue à Mantes-la-Jolie. Mais, mais, bonhomme diminué, rivaille. Mais, bonhomme diminué, rivaille. Adibi Amandouaï. Si ça abonne, là, mon tago. ayyesugol lawol pulo haaldako waɗani neɗo ko bandum an rek mantla zoli yes sir mantla zoli du ay fooɗo ay caaxaan jom mantadi e eh, accam nde woto bonu vidéo omo e eh, yo accam accam accam kon ah, awlul ay dan yiɓani moon yessay yessay men naar waay e boy naar waay año waaw waaw Khady Diop degen mbaay loolu day ñëw mariage météo mu ñëw mais bébé Zénith en ah. la Jolie avec la famille, la MIFA, en direct de Matlazoli. Dernier réglage. On, on, on, on constate même tout droit, la famille, LKE from Pramare Music. Il faut. Tout droit. Tout ndeysaan ndeysaan nit ku dëggu mënoo xam fii daar bee fi ne mënoo man laa joli famille la famille la ñëw dañ lay yaatal ñoom famille la ñoom jaay sécurité mystique tey ñun association bi yoon mas mas bi moom Touré di wax fii ñun famille la man laa joli damay wax ni tout le temps fii mooy capitalu France dama koy ñëwee dañ lay yaatal ay nit yu baax lañ ñu lay ñaanal ci bés bi nga jëm dañ ciy dem ba jeex tàkk waaw ñun Sénégal rek lañu am képp lu Sénégal xew la rek dañ ci bi nga def ñii ñun dafa rëy ci ñun mat laa waaw daal na gën a yaatu vive Sénégal ñu ñëpp benn ndam rek mais ñun Maodo man avenir sport et culture maay président bi ñu obligé tournoi international yi moo tax ma le 19 bi on a rendu hommage aux footballeurs sénégalais qui sont décédés booy booy a mooy suñu chef de groupe mooy président bi station Mass Mass avenir de culture dans deux ans incha allah wala yëpp ay yaatu incha allah incha allah rabbi day yaatu dañ lay dugg incha allah bëgg nañ nga ñëwaat def waaw leen di leen wallaay yow responsable marché wallaay ji bi wallaay nice nice yeah. Sidi waaw. Ils ont sauvé les morts là. grand master de Mantla Jolie. Grand master de Mantla Jolie. Yes, sir, a.k.a. Wadner Kobandum. Yes, Bolo Bolo. beauty, beauty cosmétique. Yes, sir. La vie, La vie. Oui, la vie, oui. Sa vie, hein? Sa vie fort. Oui, sa vie fort à Matlazoli. Oui, sa vie à Matlazoli. Yes, sir. Il est là, la top sécurité avec Sidi, l'équipe, ils il est là, machallah. Sa vie, Amanda? Sa vie fort. Ah, non, machallah, machallah. macha allah sant yàlla macha allah macha allah toujours toujours nañ ko bandum ko on est là la famille gis nga le monde est petit. borom Guédiawaye. ah borom Guédiawaye oui. yow toujours chez Mame chez Mokhtar. c'est mon grand frère. vous allez chez Mame. c'est bien. oui c'est bon c'est taille standard. Zénith. oui. Lui et son manager, c'est des tailles standards. Sa vie à Mantes. Oui, sa vie fort, mon, mon gars. Oui, sa vie. Oui, j'ai validé. Tout le monde a validé. Ouais. Sa vie. Ah, la mi si Mantes-la Jolie waaye caméra gi ay caméra gi aji waay soxna aji. aji ñu ngi lay bëggee. jaajëf soxna aji. waaw semi nocturne la day teel a commencé nag 18 heures la ñuy tijji bunt yi semi nocturne waaw. papa. Sidi. Sidi gars Sidi. xale lool. Le lion. Oui, le lion. Le... Tu touches à Khalil, tu touches à nous. Le Wara. Le Wara. Le Wara. sa vie ah. woni yaakarañi low aka borom sénégal borom fouta borom partout so hande wadɓe mottolagori galle makko wallahi ndesan beltima moy sa vie sa vie sa vie amata la zoni ya sa vie way mais ça c'est le plus jeune ménageur de l'Afrique de l'Ouest waay jékki waay mais jékki la nga maron beñ la nga chocolat la nga chocolat vanille jékki li lan la jékki sa kool lan la <laughs> Ah waaw kii nag moo yor marché bi moo géré marché bi képp ku ñu jox place rek doo jaay. man bu ñuy lekk ji bi kii moo tax. ndeysaan ça c'est les cadeaux ah. ça c'est pour moi merci beaucoup mon frère. merci beaucoup. waaw waaw oto si. Nduro Waale. waaw Nduro Waale. Modou Diagne la Modou Diagne Nduro Waale Modou Diagne. Cey Modou Diagne. <laughs> Modou Diagne jaaxal nga ma. André de Mantes la jolie. Euh. na nga def. yaa ngi ci jàmm yaa ngi ok yaa ngi waaye zine bi le 29. ñun fii la ñuy solo. wuy ma dafa xam gu xam yére. yaa ngi waaye zine bi le 29. incha allah semis semis nocturne la day teel a commencé. le 29 waaw day teel a nocturne la. ah yéenay indi incha allah kon nag day teel a commencé en semi nocturne la du ma ci dépose dix huit heures yes mais mais bàñes waay mais bàñes waay ana Mara am ah, ngi ñëw ok ah bien ah bien fourni café gi c'est les Sénégalais qui sont là oui ça c'est le café gi hein café gi mafia café gi hein Donc il y a Café Guy. Ça va quoi Ouais, alhamdoulilah, tranquille mon frère. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ouais, Café Guy. Non, n'hésite pas à dire bonjour, c'est bon. Voilà. Bonjour. Après, voilà. Le 29 juin, Zénith, Paris-la-Villette, semi-nocturne, votez bon 18h. Sa vie, oui, sa vie, sa vie, oui, sa vie beaucoup. Yeah. Et la famille. Ah, ahlan wa sahlan. Yeah. Yes, I. Thank you, my brother. Matla Zoli. Sidi Diop. Sidi Diop, pas dans la maison là. Yeah. Yes sir. Ndeysaan. Ah, mooy sa idée bi. Ndeysaan. Chef Sécu. parce ah, que c'est sécu. Gims. ana Gims Gims mel Gims. Gims waaw. Yes sir, yes sir, yes sir. C'est ça le but. Yes sir, thank you my brother man. Il faut donner la force. On

Donc ah, il va faire okay. un concert au Zénith le 29 juin. On appelle tout le monde à venir. On est ensemble. On va donner de la force. On est ensemble. Check, check, check, check. Ah, l'artiste ou pas Est-ce qu'on peut faire un featuring toi et moi ou pas ah Vas-y. Ah. Vas-y. Ciao. Lambada, frère. <laughs> On est ensemble. On est ensemble. Ha ha ha! ndeysaan ndeysaan ndeysaan man yéen laay topp nañ toppante rek ndeysaan